bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ma bikum min ni'matin fa min allah mbokki jullit yi mbokki daara yi mbokki sénégal mbokki diaspora bi mbokki yi topp seen télévision Tawhid TV tey wéttali ko seen émission bi di alhuda asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu noo ngi leen nuyu bu baax di leen ziyaar di leen baal xaq te leen koy balu di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla ñu yàlla boole baal amaan nañ mbégte kontaante ñëwaat ci aljumay tey ji ci seen émission alhuda ni ngeen ko xamee di émission bi yitte woo téere borom bi subhaanahu wa taala ci télé bi ci jàng kook jàngat ko génn ci njëriñ jëm koo jëriño waaye bokkook ak suñu mbokk julit lu ci bare bare suñu ñëwee nag noo ngi bokk jotaay bi ak sunu doomi ndey sunu mag sunu xarit al ustaz Mouhamadul Makhtar Silla moom moo ñu féete ci sunu wàllug ndeyjoor war a bokk ak ñun jotaay bi waaye ñu am invité bu mag di sunu mag sunu xarit sunu soppe imam Mamour Mbeng Euh, dëkk fa la ci Canaba di fa am taxawaay yu am solo lu jiitu ñu leen koy présenté ak li ñu war a waxtaanee dañuy bàyyi Cheikh Makhtar mu nuyoo euh, dalalal ñu sunu gan incha allah bu nuyoo moom tamit ñu présenté leen li ñuy waxtaanee imam wala Oustaz Makhtar asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Cheikh Mouhamed ñu ngi lay nuyu bu baax. Mhm. di nuyu mboolem ñi seetaan télé bi. Mhm. waaye di nuyu tamit ñi ci biir techniciens yi ñu leen di ñoom ñëpp. Mhm. di nuyu alxaaj Mamor Mbeng mi nga xam ne moom la ñu dalal tey. Mhm. di ko ndokkeel di ko tatagal. Mhm. di ziar jullit ñëpp. di mhm. leen bal di leen bal àq. di wax rek ne ñu ngi jot appréciation yu bëree bëri. ci émission alhuda bi alhamdulilah sànq maa jox taan menn mbokk wax dëgg yàlla émission bu am solo lool ci wàllu jàngat jàngat am njàngale la moom mën nañ ko tuddi rek ab dars buy am dars buy am ajju nekk ci wàllu alquran. Euh, te xam naa ne bu ñu duggee ci li ñu war a waxtaane nit de dañuy gën a xam ne. émission bi moom mi ngi mi ngi mi ngi ànd ak jamono. dëgg la donte alquran moom dafa ànd ak jamono. waaye émission bi tamit mi ngi topp alquran ci ànd ak jamono googu. macha allah barakallahu fikum. Euh, jazakumullah xeyran Cheikh Makhtar Alimam asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu Abou Taha Serigne Dar Mouhamed Alioune Guèye. di wax mbokk yëpp asalaamaaleykum. wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu waxee ne alhamdulillah wa salaatu wa salaamu ala mhm. wa alihi wa sahbihi wa man wala mhm. xam naa ci njàlbeen rek damay mhm. euh, fësal sama mbégte ci bokk ak euh, plateau yéen ñaar ñëpp euh, bu dee oustaz Makhtar Sylla moom sunu soppale ci alquran waaye aussi ni mu koy façon bi mu koy defee ndax alquran am na jël bind mais am na aussi féexal xol dëgg la te moom yàlla may na ko ñaar yooyu yëpp ci wàllu communication yàlla na ko yàlla doolee dëgëral yaa eh, ñu ngi lay nuyu di la ziyaara mhm. xam naa di fasal ci kanamu télévision bi nii mhm. sa waajur moom mooy sama sëriñ ndax moo ma jàngal dafa ma jëlee nag dafa sori ndax ku jàng français ba am bac plus un mhm. dugg université ca fere woon ij nga ñëw ci ay loxoom mu def ci yow li mu def ci yow. Mhm. moo tax duñ ko mën a fàtte benn yoon. alhamdulilah le bala muy commencé émission bi li ma mhm. daan yóbbante rek laay yóbbante képp ko ñu seetaan. Mhm. dafa daan wax ni Baye Mor. bu ma génnee àddina. ma ne ko ay oustaz mu ne ma mënut a ñàkk. bu leen yem rek ci ak a baaxoon. di leen di ngeen di wax ni yàlla na ko yàlla yërëm. yàlla na ko yàlla jéggal kon pour delloo la kàddu gi. Euh, seen télévision bi ak émission yi. wax dëgg yàlla solo si ëpp na. alhamdulilah waaw solo si ëpp na ndax it euh, jàngukaay la. maam ku ci toog rek. Mhm. topp seen émission. Mhm. di ko jël bind bu bees. Mhm. kon daal ñu ngi ci félicité. kon boog ñu delloo la kàddu gi incha allah ba ñu ci liggéey. Euh, jazaakumullah xayran imam Mamor euh, Cheikh Mokhtar bëgg a waxtaanee bu rëy ci diine ji. dañoo jël tey laayey walillahi ala nnaasi xajjul bayti man istataa ilayhi sabila ngir bëgg dugg nag ci waxtaane aj daaw bi ñu tolloo ci waxtu wi waxtaanee woon nañ ko ci côté ahkaam yeeg atte yeeg yu ne demee dala loon ci oustaz Mouhamed Lamine Dramé mhm. bu daarul istiqaama mhm. waaye ren nag dañoo bëgg a dugg ci pratique bi rawatina sénégalais yi mhm. bu ñu déparé Sénégal fan la ñuy wàcc lan la ñuy njëkk a def ba keroog ñuy jeexal lañ fa war a def ànd ko ak imam Mamar bi nga xam ni yàlla dogal na ni njort naa ni aj gii di ñëw incha allah moo war a nekk ñaateelu yoon teewloon ko waaye war naa nekk ay yoon de. wax dëgg waaw waaw ay yoon xam naa ne bu bu jigeegul bu rombagul fukki it. soreetu mm, <laughs> yoon yëpp eh, gu njëkk ga daal laa xam ne demoon na en tant que ajkat eh, simple waaye yoon yëpp dafa nekk gidd ci aj gi macha eh, di di tege ci yoon di wane nañ koy defee ak barab bu nekk lañ fay def macha allah loolu ci lañ bëgg dugg kon nag ñu jàngal laaya ji buñ paree insha allah imam maxtaar ñu dugg si ci waxtaan a'uudu billahi بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين macha allah macha allah muxtaar alquran neex na. waaw alquran léegi bu ko mën jàngee mu def. maanaam bi nga ne ma mënta xalahu kaane amina sama xel ñëw na ci suñu jotaayu Ibrahima. macha allah. juñ joon ni daa ñaanoon ba mu nekkee ndandu fay fa leen yàlla. ijaal haada baladan amina waaw haada baladan mu nekkub dëkk mu ni haada al balada amina mhm, allahu akbar borom bi nangu ko ni wa haada al baladi al amin mhm, xoolal gaa yi yow man daxalahu kaana amin la ilaha illallah la ilaha illallah non affaire bi tàmbali naa neex euh, donc aj gi lañ bëgg a waxtaane mbokk jullit yi dalal imam Mamor am na lu mu junju mhm. euh, njàngam ci door mën naa am tubaab la doon jàng ba pare woon nja ci njàngu école yi duggoon université doon def droit. surtout mag Mouhamadou Lamine Dramé nee na ko yàllaa yërëm juge yi <laughs> ba deful avocat waaye. <laughs> mu jóge fa euh, sëñ euh, sëñ Mokhtar takk ndiggam soobu ci njàngum diine. macha allah mulaazama ni mu ko junjee sunu waajur rahmatullahi alayhi jàng ci moom lu yaatu. waaye ak ay expérience yu mu am ci mouvement islamique bi ci am njàng ak yaatal. ba yàlla dogal na fi mu ne nii. kilifa la ci diine ji. macha allah ndax kilifa ci diine mënta weesu yor daaray alquran di jàngale gone yi mokkal. nekk ci jàkka joo xam ne bu julli jotee dañ naan la doxal nga julli mu fay imaam. Mhm. waaye boo aj gi ñëwee nga ànd ak mbokk jullit yi naan leen nii la du nii. ba seen lépp jaar yoon. macha allah kii mooy sunu gan kon gi ñu war a dalal. Mhm. imaam Mamor. Mhm. dañoo bëgg waxtaanee aj gi. def ko étape étape ci pratique. Euh, ginnaaw boo ñu présenté. aj ci kàddu yi néew ban étape nga ñuy njëkk a duggal. alhamdulillah wa wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain sëriñ daara mhm. aj makka mhm. dafa nekk euh, ponk mhm. ci lislaam te mooy juróomi juróomi ponk ci lislaam ponk nag buñ ko waxee mooy loo xam mënut a ñàkk ci mbir ba pare mbir may baax moom mi ngi wàcc ci atum juróom-ñeenteel est-ce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn yoon la aj makka ñeent yoon la omra est-ce que euh, loolu tamit dafa jar xam. Mhm. waaye bu ne benn yoon la aj màkka. Mhm. ñeent yoon la umra. Mhm. ci aj màkka nekk ñetti façon aj màkka. kon dina baax. Euh, ñu xam ni. dëgg la. am na am aj gum def. donte yenn saa yi euh, waram yi xam-xam ci seen ma dañ koy jëm a nëbb nit ñi. pour seen conscience tranquille ndax nit ki nag daan la wax ma ban la wax ma doon def. sallallahu alayhi wa sallam <laughs> ñu bëgg leen ko nëbb. waaye moom comme benn yoon la aj mm. kon be genn aj la def waaye moo jàngale ñett aj yëpp bu ko defee nag mu séddlu ko ci if sunnaal na gim def ci def mm-hmm. sunnaal yi des ci njàngale ci njàngale mm-hmm. waaw kon daal ci mm-hmm. euh, tënk kon aj yi ñett la dafa am ifraat am xiiraan am tamattu ifraat mooy aj kese ifraat mooy aj kese xiraan mooy lëkkale ñaari yi te du tàqali ko mooy lëkkale ñaari yi commencé ndoo ko paree ndoo ko tamattu mooy njëkke umra njëkke umra pare pare doog aj doog aj jërëjëf <laughs> <laughs> man man daa mel ni miin naa bërëb waaw waaw <laughs> ah, macha allah waaw kon daal loolu mooy euh, ñetti aj màkka yi mm-hmm. bu ko defee insha allahu rabbi xam naa bu gënee dugg ci biir euh, ci pratique bi lu mu laaj rek ci commencement ba keroog ñuy dem léegi imaam naftarit mhm. sénégalais yi déparé nañ fi mhm. jëm màkk pour aji mhm. ban étape mooy étape bi njëkk ci sénégalais yi bu ñu wàccee mm-hmm. mamlaka al arabia saoudia ak étape boobu la moo fa am ci yoo xamante ni di ngeen ci jaarale xujjaaj jërëjëf sëriñ daara xam naa bala ma ciy ñëw rek mm-hmm. euh, ma ñëw ci mawaqit yi mm-hmm. comme daal miqaat ya ak miqaat makaniya xam nga boo xoolee ni yàlla doxalee dañoo ñëw ci weeru koor mu ne ñu yaa ayyuha allazina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaqun kon ci biir weeru koor. Mhm. diplôme taqwa laa lañ fay jëlee. Mhm. mu ne attention neen ko fonk. Mhm. ndax mooy seen sëriñ ci aj ci aj gi. wa tazawwadu <laughs> fa inna xayra zaadi at taqwa bu ko defee nag. Euh, kon euh, koor ak aj màkka. dafa nekk alxames ak àjjuma bis doxul seen diggante. dëgg la maam bisu korité. mooy tàmbali tàmbalimaay ci euh, kañ la aj màkka jot maam miqaat zamaan yi aj màkka. maam kañ la wax waxtu wi dugg si. bisu korité la. est-ce que maanaam bisu korité mhm. ku amoon moyen mhm. wàcc màkka mhm. booy tamattu mën ngaa commencé sak aj ndax yaa ngi ci miqaat zamaniya bi waaye euh, mujjantalu man ak armal ca bokk ci aj ga mi ngi nekk ci guddik fukkeel xam nga dañuy wax ne alxajju <coughs> maanaam booy aj faaw nga bokk ci aj gi balaa arafat a jeex waaye arafat bu jant bi sowee xamoon ni ñaa ngi jëm musdalifa waaye boo ñëwee nag ci guddi fukkeel nga ñëw wàcc arafat dem avant fajar gi xar mm-hmm. bokk nga ci aj googu ci lu benn saxaaba defoon mm-hmm. ba pare wax ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko bi ma ñëwee montagne ñoom montagne yéeg naa ko mm-hmm. xuroo xur wàcc naa ko bi ma ñëwee nag fekk naa ngeen jóge musdalifa waaye dugg naa musdalifa ci guddi gi mu ne ku ne ci mus musdalifa ci guddi gi donte benn euh, diir bu gàtt la nga ñëw bokk ñun suñ julli gi ci musdalifa bokk nga ci aj ji kon loolu aussi dafa jara xam ci présentation bu gàtt léegi nag sénégalais yi dañuy baaxoo. Mhm. di jóge fii. Mhm. di jaari Madina. Mhm. loolu tamit. Euh, day dolli. day dolli. sëriñ bi. waaw day dolli yóbbal ga yaa ngi dégg. <laughs> da leen gën a dañuy gën a chargé ndax yow xam ne iman day yéeg ak di wàcc. Ah, day yéeg ci topp yàlla. mais day wàcc aussi. ci ci mooy. mais sëriñ daara foofu. maa ngi euh, conseil képp ku ñuy déglu. xeer gu ñu xër ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dina tax yenn saa yi ñu rate suñu yéene avant dugg hmm. xam nga jaamu yàlla gune hmm. dafa am yéene dëgg la ca Makka dafa sori hmm. ca lañ fay def metti ca lépp lu ñuy def dañ ca war a am ñaar ixlaas ak sawab mooy yàlla moo war a tax ca dañ ca war a toppandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngay gis ku naan la man de ren damaa bëgg a siyaare ji yonent bi ah kay siyaare yonent bi lu baax la ci mhm. il faut ñu def ko nag mhm. ndax ñun sénégalais yi mhm. yàlla moo ñu baaxe ba duñ nangu wenn xeet wu ñu gën a bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi nag kon nii lañ koy organiser da ngay wax ni damay aji ziyaare wàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mbir mi nangu na nga dem aji kon yéene ji mooy dem aj màkk waaye nga ziyaare wàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dooni xaarama ziyaare ji ajaale dëgg la waaw maam loolu sew sew la du benn ñoom ñaar <laughs> du benn waaw kon yéen a jëlee yëkkati jubluwaay bi mag mooy aji jubluwaay bu nga laaf ci nga laaf ci ziar yonent bi yaakaar naa boobu ubbi buñ ko ubbee dina war a mën a dugg na ci yeneen mbir ci état bu ma demee ak yu mel noonu bismillah naam mhm. waaw bu dee Madina mhm. euh, xam nga foofu buñ fa wàccee mhm. yenn saa yi nga dégg ko naan la waaw ndax ndax waaye yow yéen seen agence bi mbaa di def ma dina juróom-ñetti fan yaa ngi dégg <laughs> te nag texte buy wane ni faaw ñu def Madina juróom-ñetti fan moom danga ko dool gis dëgg la waaw ndax it dafa am loo xam volet économique la rek mm-hmm. a jamono yooyu bëgg faa téye ujaaj yi pour wane ni da fi def juróom-ñetti fan waaye bu buñ fa jaaree dañ ci gañe ñaar mm-hmm. dañ ciy gañee mhm. yokke sunu imaan ci di jullee ci jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. xam ne genn julli foofu mhm. junni julli lay wecc feneen est que waaye commencé fa naa ne sax zam-zam nag que zam-zam amul madina cib teen waaw waaye moom la ba dañoo organiser wu ba dañuy roote màkka ca zam-zam ma ñu di sotti ci biir glacière yi ci biir jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maam biir jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam glacière boo fa gis ñu def ci ndox nga naan ko rek gëmal ni naan nga zam-zam <laughs> ca foofu nag maa u zam-zam li maa shuriba la li maa shuriba lahu mhm. doo ci jublu rek naa ko mhm. naan ngir wér waaw mais naa ko naan ngir nekk borom xam-xam sax naa ko naan pour ëllëg yàlla gërëm ma ca kanamam naa ko naan ngir sama xol set sama diggante ngir sama xol set sama diggante ak sama borom naa ko naan ngir sama a màkk nangu kon foofu bu ñu fa nekkee. Hmm. war faa julli ci jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Hmm. man faa demale aussi. Hmm. Quba masjidul Quba. xam nga masjidul Quba. mooy jàkka ji nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la njëkk defar ci lislaam dëgg la bu ne moom la njëkk a ci lislaam di nga gis ko ne la waaw Kaaba gi nag. ñu ne non Kaaba gi moom yonent yàlla Muhammad defaru defu ko. waaye bi ñu ko yónnee moom. mu nekk yonent. jàkka ji mu njëkk a defar ci loxoom. waaw mooy masjidul Quba. Quba est bi mu ko defaree nag. Mhm. dafa fasante ak jàkka ji kóllëre. est-ce que. ndax dafa def ab diir. Mhm. jóge fa. soog a mhm. ñëw ci jàkkaam ji. Médine Médine. waaye diggante boobu. ñetti jàkk dafa tasaaroo dafa dafa deseene wu. xam nga boo ñëwee masjidul Quba. waaw dinaa ci ñëwaat léegi. ba mu fa jógee. dafaa jóge bis bu àjjuma. ci yor-yor bu tàng jër. mu dem ba ci yoon wi. yàlla faratal àjjuma ci ci moom. mu taxaw fu ñuy wax banu saalim mhm. jiite fa mbooloo mu toll ci téeméeri nit mhm. muy premier ajuma ci lislaam premier julli ajjuma mhm. foofa nag léegi ñoom farul doon ba def fa jumaa ju ñu tuddee masjidul jumaa kon masjidul xubaa nekkul ne fa la njëkk a jullee ajjuma waaye moom la njëkk a defar ci lislaam dafa diir julli fa ay la mu fay julli ñëw ba ci yoon wi ajjuma ñu farataal ko mu jullee fu ñuy wax masjidul jumaa foofa nag boo farluwul ci kullu ziar jullee ci barab boo xam ni fa la masjidul jumaa fa la ko def léegi waaw ah, ah. soo ko ñëw nag ah. ci jàkkaam ji nga xam ni mm. da koo defar ba pare njëkk a defar jàkk ji soo kii teg kër gi allahu akbar kon masjidul xubaa bi mu ko defaree mm. dafa dafa fasante moom kóllëre mm-hmm. daan fa ñëw chaque semaine mm. foofu nag euh, kullu sabt la xadis boo wax kullu sabt yenn saa nga ànd ak ñun la waaw mais imam ñun samedi fii sabt samdi la waaw ñu ne déet kullu sabt kay. loolu mooy chaque sept jours rek chaque semaine la fi daan ñëw kon yow ñëw nga fa dimanche mm-hmm. wala ñëw nga fa ajjuma mm-hmm. wala ñëw nga fa samedi mm-hmm. benn la parce que boo ko bëggee tënk ci samedi ci sa agence yow samedi du ko fekk Madina di am jafe foofa lañ fay gañe xamalan la mm. mooy yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp ku jàppe këram ca boo fa nekkee sa kër mooy sa hôtel nga ñëw masjidul Quba nga julli fa ak julli. Mhm. am nga yoolu umra. kon kon yoolu umra. waaw madina nga koy commencé amee. avant ngay dem. allah allah beneen bi mooy. Mhm. ca euh, buñ fa buñ fa defee suri ziyaar yi ci des. mooy mhm. jaar dem fa uxut. dem na uxut ci euh, ziyaara bi. ci kullu ziyaar bi. gis euh, ña fa ne. ci ay mujaahidu ak shuhada yi. <laughs> nga fàttali lan mooy uxut. yow mi xam lan mooy yow mi xam uxut. dinga dinga di nga wormaal foofu saxaaba yi ndax uxut mooy fi gënoon a jafe ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem ba damoo ba ñam mm. daayal ko ci kàmb mm-hmm. saxaaba yi farlu ba mm-hmm. ba rawale ko mm-hmm. à tout prix même bu seen bakkan di des moo tax juróom-ñaar fukki nit tëdd foofu ba koo xamee ni bàyyi taxam la di xamsa bàyyi la ci moom. Mhm. waaye frère la ci moom ndax dañoo nàmpandoo. Mhm. ci boo xoolee ñoom ñaar ci ak magee ñaari at la ñuy magantee. ma nga fa tëdd. Mhm. premier ambassadeur am ci l'islam muy Mus'ab ibn Umayr. ma nga fa tëdd. ak ñeneen ak ñeneen ci euh, ay àndandoom. boo fa jógee nag war a mën a dem ci masjidul qiblatayni. masjidul qiblatayni. jàkka la joo xamante ni bii li tax ñu tudd ko masjidul tey ni mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekk Madina. at yu ay weer yu bari mm-hmm. lu toll fukki weer a juróom-ñett mm-hmm. bu fekkee juuma ci ta natt bi mm-hmm. di julli di jublu Palestine dëgg la bi ko yàlla joxe ndigal muy julli màkka di jublu di jublu màkka comme temps yooyu réseaux sociaux yi amagul woon téléphone wala whatsapp ak loo ko tuddee amagul woon kon euh, fort possible am na ñu ne ci ay koñ koñ koñaan yoo xam ne nii xibaar bi àggagul ci ñoom mu yónni ay saxaaba ni leen Mhm. dem leen ci boori banu saalim nga leen ngeen wax leen ni leen mhm. léegi ndigal ñëw na ci bu ñuy julli makk la ñuy jubloo mhm. foofu ñu bari lañuy xaw a juum ci jàkka jooju nekkul ni mbir mi ci yonent bi la daloon ci masjidu xiblatayni la xew xiblatayni mooy gaa ñi dañoo ñëw fekk le ñoom ñuy julli julli ñeenti rakka ñu am ñaari rakka gaa ñi xam ne ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko war a teel a joxe ñu wax ak mbooloo mi ci biir julli gi mhm. ni leen xibaar jib na ci ni mhm. léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko déggal mhm. boo julli màkk ngay féete ca gaa ya nga Palestine ci xam nga ni màkka Palestine Madina ligne droite la boo taxee euh, Madina boo jàkkaaroog Palestine wan nga màkka ginnaaw boo jàkkaaroog màkka wan nga Madina ginnaaw euh, kii euh, Palestine ginnaaw bi leen ko waxee imaam bi def rotation rotation <laughs> yaa ngi dégg bi mu ñëwee daal di daal di dox ci kanam àggale ñaar rakka yi nga xam ni mhm. moo ko desee mu àggale ko yoonu màkka jàkka jooju ñu tuddee ko la tey nii ndax ci genn julli jublu ci ñaari xibla donte gaa ñi sax danaan madina ci boppam xibla tey ni la waaye jàkka jooju moom mooy masjidul xibla tey ni sëriñ daara bon boo fa jógee am na ay saba al mooy xàndaq bi fi mu doon amee xam ni keroog ca laxzab bin leen gawee dafa gudd mm-hmm. du fi xaj ci mm-hmm. émission bi euh, léegi am na ay jàkka yu ñu fa def mm-hmm. muy euh, saba al masajid lañ ko tuddee di fa dem di nga dem masraa mooy toolu tàndarma yi toolu tàndarma yi ndax it euh, ajuwaa dafaa nekk ku ci lekk juróom-ñaar moom ak njabar doon ko waabite si biir yaram maam juróom-ñaari ajuwaa mhm. moom njabar duñ dëkkandoo ci yaramu doomu aadama loolu yonent bi wax loolu yonent yàlla Muhammad wax xalis baa ngi ci saxeelu Buxaari <laughs> nee na képp ku lekk juróom-ñaari ajuwaa mhm. euh, njabar ak posen sax du la mënal dara kon sëriñ daara euh, euh, ziyaara yi jeexul waaye ñu mhm. am ci benn aperçu rek macha allah bu ma ñëwaatee nag wax beneen njariñ ci Madina incha allah ci bu kàddu ki ñëwaatee ci man eh, jërëjëf imam Mamour Cheikh Muxtaar étape bi njëkk ci sénégalais yi mooy wàcc Madine du mooy jubluwaay bi imaam wax na ko jubluwaay bi mooy defi ponk ci lislaam kon bu ñu ratee yéene gi ci door waaye dañ ciy laafaale ziyaar yonent saa sallam te yonent bi defal ñu maanaam lislaam yàlla defal ñu tawfiqi fa la ñuy njëkkee mu mel ne ak laytaay ni mu ko waxee biñ ñëwee ci saa si ziyaar ji jàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñu fii la daan jullee fii la daan taxaw di xutba ma nga nii tëdd mel ni màkka maanaam euh, alkaaba daa yebal zam-zam mu teeru si gars yi waaw nee na loo naan rek ci biir sallaajaat yi <laughs> allahu akbar ak barab yu tedd yi mu fa tudd nga xam ni ni mu ko waxee mel na ni kon yàlla dañoo defal tawfiq da ngay wàcc Madina chargé wu ci wàllu iman ba am foo tool toll foo xamante ni di ko mën a dugg Makka nag am force mën def say kii étape boobu nga xamante ni juñ ko ci Madina eh, lan nga ci Mohamed macha allah man mii wax daa mel ne maa ngi Madina comme man yàlla dogal Moussa Fadem man de mel ne maa ngi dafa mel man nag sama aj dama mu ne dañu dëkk aj doon dem def ziar mm. loolu aj lañ dëkk ah, yow dafa da ngaa demoon ci duyuful xaram ah, laa dem moo tax mm. duyuful rahman mm. léegi mm-hmm. eh, waaye Cheikh Mouhamed waaw dafa am def teqantal bu sew bu boo xam moom la alaaji Mam Mor def te mooy mm-hmm. ñu xàmmee mm-hmm. yéene aji màkka waaw waale ak yéene ziare yi pour bëgg ajaale bu njëkk bee baax bu mujj boo ko defee du baax parce que ziare ji yonent bi sallallahu du farat baax na trop waaye taxu laa jóg. dëgg la waaye nag boo demee nag ba màkka ba jege ko wax dëgg yàlla euh, ngor du maye nag. am aji nga laa waaw la ci lu lay jëriñ lu nekk. waaw te te te te du yàq aji. jeex na xam nga euh, lay sàll mu joxe an tabtagu fadlan min rabbikum yooyu yëpp lay. jëriñ dafa am dafa am aaya boo xam ne gis bi ñu jaar am aaya bu ko jur boo xam ne yàlla yàlla. sëñ Mamour yàlla ak am sunat li muy def qul sadaqa allah la ilaha illa fattabiu millata ibrahima hanifa wa ma kaana min al mushrikin la njëkk a wax loolu yox ci ne awala baytin dafa njëkk a wax loo xam ne day bàyyi loo xel ñi nem ni leen ak lu mën a xew foofa nag naa naa leen tax a jóg est-ce que ni même néeg bi néeg bi mu leen tax a jóg ndax néeg bi damaa santaan ala naasi xijjul bayti est-ce que est-ce que yàllaa moom aj gi néeg moomul aj gi araf moomul aj gi ay joxoñ la dëgg la yàlla joxoñ jaar leen da tax mu ñu jaar fa moom moo ko xam dëgg la da tax mu joxoñ ko noonu da tax mu tànn kaaba ga moo ko xam c'est-à-dire man li ma bëgg a wax rek ci maam Mor li ma wax nii Sénégal yi bëree bëri bu ñu demaale dëgg la ñu jéem a defaraale seen yéene bu baax ba du ñu bàle dara ci shirk dëgg la xam nga shirk fi la ibaada mën naa am sax ci biir ibaada gi dem ba yàgg euh, maanaam alxuraan ji maanaam yàlla taxutu nga jaa alxuraan ji wala aj ji léegi gisatu ci yàlla nekkatu ci yaa ngi nekk bi la loolu buñu dee ba ci kanam baag si ziar yi ak yi ñu war a raay ak war a laal bu si xam naa ne dana gën a leer waaye li ma ciy def def nii bu am solo la mooy dem dem Madina chargé bu baax sa batari ba mu fees te Madina moo gën a neex Màkka xamoon bu baax nit yi Madina ak nit yi Màkka sa bokkuñ bokkuñ loolu bu ay mbir la yoo xam ne da nga da nga xam athaaru nabi dafa garab yi ci nit ñi ay fa a yente ba tëdd mais tàngoor yu nekk mak a Madina eh, eh. tàngoor fa nekk bu eh. mun a mu kayee faat am léegi te mooy mm-hmm. climatique yooyu mm-hmm. man daa faa dem di xalaat ñii nu doon dundee fii soo génnee ci hôtel bi jëm jëm ci madina jëm ci euh, jumaa ji bala ngaa dugg mhm. diggante boobu mhm. maanaam mbooye ma gën a tàng ñu fa ñu ci lokkat xam nga lokkat ma xam nga lokkat lokkat euh, maa ñu ñuy ruut kuy ruut waaw xam naa ko de ci booy bu tàng taal ay sëb noonu ngay dox ci biir sëb diggante sëb bi noonu la mel lokkat waaw waaw loolu tàngaay mel ak ci daraja boobu sëb bi nga ciy xeex di ci lu nekk def ko ci ñooñu duñu ay xalaat ma ne ñi ni dund fii daal ah, dëgg dëgg dëgg ay jàmbaar ak ay jàmbaar daal la am lu ma ci taxale macha allah yàlla fay leen ni ko imam Mamadou waxee ci mbokki doaat yooyu niñ koy waxee ñoom dañ daan nekk nekkal yàlla mhm. maam nit ñi ci yàlla ci guddi gi waaw ba bëccëgee ñu nekkal yàlla ci nit ñi imam euh, imam mhm. non yu mel ni daa neex daal dama am sa dégg ci moom ah, nee na genn ajam daa masa daa toog ba yàgg daal mu ni xaaral ma dem wettilante yonent bi wallaay wallaay nee mu dugg ci jumaa yonent bi tëdd ci wetu rawda bi daa di xalaat maa man ci wetu kan laa tëdd nii duñ ci yàgg imam parce que bëgg naa tamit ñu dugg bu baax ci aj gi rawatina pratique beeg yooyu te waxtu wi day avancé mhm. parce du duñ yàgg ci étape Médine léegi buñ ñu sénégalais yi jógee Médine mhm. fan nag la ñuy tàmbalee dugg nag ci euh, étape bi ci topp nga xam ne moo euh, topp étape Médine jërëjëf jërëjëf Serigne Dara mhm. euh, aj Màkka dafa am ñeenti ponk dafa am la ñuy wax armal taxawaay Arafat tawaaful ifaada ak safa ak wa mhm. kon loolu ay ñeenti ponk la mhm. am na ci ay waajibaat du mat juróom-ñaar mhm. euh, ponk yi waxoon naa ne ni ponk mooy li nga xam ne mënu ko bàyyi ba pare mbir ma mbir may kon armal ponk la waaye armale miiqaat waajib la maanaam tey li ma bëgg a wax mooy ku armalu woon asalan armaloo ajo maanaam bu ma demoon ak sama jees neer waaw def li gaa def lépp waaw taxul ma aj maanaam def li def lépp xam nga armal dafa mhm. am eh, sangaayu armal ak yëree armal bokkul armal ah. armal mooy yéene yéene ji waaw dugg ci aj gi waaw ah. tey loo mënoon def ci armaloo mhm. ci après naa wax lan mooy armal mhm. bokkoo waaye nag boo ñëwoon ci miixaat bi nga fàttee armal nga dem a dem a dem ba ñu waaj dugg màkk nga ne waaye ñun dañu dul armal ñun la ah ko ñaar doo ngay mën a am wàññee ko dellu miixaat armal yi te loolu impossible la parce que kaar yi duñ la ko nangul wala boog nga armal ba pare def nag luy jañ euh, joxe euh, diye bi nga xam ne moom mooy euh, jañ li nga def ndax armale woo miqaat waaye armal nga ci yoon yi kon armal ja baax na kon différence dafa am ci armal ak armal yi miqaat moom bu amul moom aj du baax sëriñ daara bi ñu ñëwee ba ci ba war a armal ci ñetti façon aji benn bu ne ak noonu foofu tamit lañ fay gañe mooy xam nga miqaat yi dañoo bari hmm. waaye ci yërmande yàlla subhanahu wa taala la jël kaaba gi def ko ci digg bi mhm. mawaqit yi war ko waaye li ñuy bari bari benn eh. miiqaat kese mhm. la ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi armale mm. kon ñi jaar ma Madina mhm. gañawaat nañu ci mm. armale fi Seydina Muhammad armale te mooy Zul Xulayfa <laughs> yaa ngi dégg ah. foofa nag danga fa gis njàmbaaru saxaaba yi ndax euh, man li ma gën a frappé ci mbooloo ba ñuy dem jigéen la muy Asma bintu Umays di soxna abu Aboubacar bu lay laaj ana ban soxna mhm. la ñett ñu war a dëkk ajana denc kenn ko ne denc ko te ñoom ñett ñëpp ajana lañ jëm mhm. mooy Asma bintu Umays mhm. dafa nekkoon soxna si Jaafar xam nga Jaafar ajana la jëm waaw Jaafar génn àddina ñu may ko abu Aboubacar génn àddina xam nga Aboubacar ajana la jëm bashirina bil janna ñu ko Ali ibn Abi Talib xam nga Ali ajana la jëm bin ko mayee Aboubacar nag moo tombe woon ak aj gi ndekete Asma bintu Umays bi muy ñëw dafa nekk a terme dafa ëmb ba ne ci weeram mu ñëw ba ci miqaat bi te diggante jumaa ji départ fi ñu départ kër yi ak miqaat bi treize kilomètres la <laughs> mu ñëw ba foofu mu matu mu am doom kon kon kii xanaa fi mu tolloon kii na mu yónnee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko naka laay def mhm. ndax man kat fi ne nii satatuma mhm. mu ni ko mhm. da nga jël say matukaay sangu wut lu baale deret ji comme ni ko jigéen ñi defe te nga armal kon kon cangaayu armal ndekete góor da koy def jigéen di ko def ba ci jigéen ju gis baax da koy def hmm. sanguwul ngir set de hmm. waaye day sangu ngir def def sunnay sangaayu armal waaw eh. julliwul aussi avant muy armal nga eh. day armal directement dëgg la kon sëriñ daara foofu ci étape boobu hmm. muy étape bu armal dañoo war a sangu cangaayu armal waaye bala ñu koy def nañ jël suñu matukaay dindi suñuy karaw yu biir dagg suñuy we ndax da jariñ boo xasee armal da tere nga dagg karaw Hmm. boo xasee armal hmm. dañ lay tere nga dagg we hmm. moo tax boo ko soxlaa rek lay doon nag boo soxlaa dindi karaw yu biir yi ak dagg we yi da koy def avant ngay armal ngay armal cangaayu armal mooy ni ñuy sangoo janaaba boo ko defee nga sol yëree armal bu dee góor day nekk izar ak rida mooy ñaari euh, sarbet lay doon day woddu taraxlaayu waaw foofa nag nañu bàyyi xel gis nga boo boo jëlee mbir mi euh, nga woddoo taraxlaayoo bi daal di lëkkaayoo bi ci des sa ñaari mbagg dañoo war a muuru mhm. ndax sunna feeñal mbaggu ndijoor mhm. ca aj maaka ba aj maaka jeex mhm. ci tawaaf bu njëkk kese la am boo koy tàmbali nga koy nga koy dindi mu feeñ ca bu tawaaf bi jeexee bala ngaa defee dara nga ko delloo mbagg ci góor daa war a muuru ci armal foofu nag boo ñëwee comme ku góor ki sol na ñaar ak dallu ci rax jigéen moom lu ko neex armale na moytu rek yëre yu fës wala yu xat wala yoo xam dafa dafa nekk yu yaraax wala yére yoo xam tey boo ko soloon danaan lii kat. dëgg la jeneen diine ko moom dëgg la. Mhm. Euh, à part loolu. lu la mhm. neex ngay armale. Mhm. boo armalee ba ñëw ba ci miqaat bi. zul fa ñun aslan ñun waa Sénégal. zul xulayfa du sun miqaat de. ñun jox fa mooy sun miqaat. jox fa. xam ne léegi mooy raabix. waaye ku jaare miqaatu jàmbur. foofu mooy ne sa miqaat. Mm-hmm. est-ce que dégg la maam wet goo duggee màkk rek waaw miiqa ja nekk ca wet googu mooy sa miiqa moom la waa yaa ngi dégg mm-hmm. leneen foofa boo fa mm-hmm. duggee ñëw nga ci jàkka ji dangay ngay julli soog a armal dëgg la dañuy wax ne jullik armal moom amul waaw waaye boo bëggee topp toppandoo yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ci ginnaaw julli la armale ah. yaa ngi dégg Uh-huh. kon boo ñëwee ci jàkka ji fekk ñu uh-huh. julli farata àndal ak ñoom farata uh-huh. boo pare nga armal bu fekkee julli farata romb na julli ñaar rakka ñaar rakk ay njàpp taxiyatul masjid yooyu amul benn heure bu ñu boo paree nag bu la neexee ci biir jàkka ji ngay toog daal di armal bu la neexee nga ñëw ba sa oto jàkkaaroo xibla armal nooy armale bu fekkee da ngay ifraat da ngay wax ne labbayka xajjan bu fekkee aj kese ngay def kese ngay def waaw baati arab bi laa bëgg waaw bu fekkee aj kese ngay def <laughs> waaw da ngay wax ci arab wax ko ci wolof waaw kay mhm. bu fekkee ifraat mhm. mooy aj kese mhm. ngay def da wax ne labbayka xajjan yàlla wuyis naa ci aj bu fekkee xiiraan ngay def moo bëgg a boole umra jëg aj gi commencé ndoo ko pare ko day wax ni labbayka umratan wa xajjan yàlla wuyis na la ci aj màkk goo xam ne dama koy defee ndoo umra ji bu fekkee da ngay man ngaa ñëw rek ne la bay ko omra mhm. ndax da ngaa armalal omra ji loolu sax mhm. di nga gis ku naan la la bay ko omratan mutamattihan biha ilal xajji mhm. waaye day gudd la ko omra jot doy na ndax da ngaa ñëw pour armalal omra ji jiital omra ji bu pare nag di nga armalal kii bi kon daal sëriñ daara premier bi mooy armal waaye armal bu pare dafa am aw bàkk bu fa am mm. te moo loo gis am na bàkk waaw discipline boo gis am na muy bàkk aj màkka da ngaa ñëw ni ko labbayka euh, labbayka xajjan wala labbayka omratan wa xajjan wala labbayka omra mhm. yàlla ne léegi na nga commencé mhm. say talbiye mhm. nga ne ko labbayka allahuma labbayka labbayka laa sharika laka labbayka oh. inna alhamda <laughs> wa ni'mata laka oh. wal mulk mm. laa sharika lak allahu akbar wa ma kana min al mushrikin jeex na tàkk gis nga yow yaa fa xoo sa bopp loo xam ne nii uh-huh. nga baal ma dofuloo mm-hmm. kenn forcé wu la Mm-hmm. mais yaa ko engagé wu. waaw yaa ni ko yàlla wuy si nan la. Mm-hmm. labbayka allahumma labbayk yàlla wuy si nan la yàlla wuy si nan la. Mm-hmm. labbayka wuy si nan la. laa sharika laka. duñ la booleek dara. ndax yow dangaa def lu kenn deful. sañ lu kenn sañul. te li nga def kenn fekku la ci. kon ñu duñ la bokkaaleeg dara. laa sharika laka. innal hamda. cant yëpp. wan neexmata ak xéwal yëpp. Mhm. laka. Mhm. yow kese yow yaa koy joxe. Mm. kon lu ñu am yow lañ koy sante xéwal gu ñu am yow lañ koy sante mhm. laa sharika lak duñ la booleeg dara. wal mulk wal mulk. nguur gi lépp yow ak nguur gi. laka ak nguur gi laka. <laughs> yëg nga ne Cheikh nguur kenn am ku dul yàlla. <laughs> ndax ndax ndax yéen ko jàng. xam nga boo gisee li sóotu insaan tàmbale. Mhm. hal ataa alal insaani. Mhm. xiinu mina dahri. lam yakun shay'an mazkuura mhm. kon yow jamono nekkoon na fi. amuloo woon. ca lépp nga doon dox nag. ak ko mën a doon. waaw ca jamono dina ñëw. doo fi nekkaat lépp yi dox. kii doxal lépp nag. te du fi jógee kooku nguur gi moom rek moom moo ko moom. kon foofu sëriñ daara. ku jaam dara sax dalaa compal. dalaa compal. kon foofu waroon nañoo ataahu llaahu l-mulk. wallaahi qul allahumma maalika mulk tu'ti jantil mulka <laughs> kon foofu sëriñ daal pour ma delloo la kàddu gi ba kër ñu ñëw ci beneen étape bi waaw mooy waroon nañoo bàyyi bàyyiloo xel nit ñi li ñuy wax dëgg la daa am seen soxna soo xam ne nii mm-hmm. xalpulaar la waaw ku baax mm-hmm. dañoo xamante mu sopp ma lool sama mm-hmm. yaay la nag mu ne ma imaam xam moo tax ma bàyyi takk téere loolu la ko waxee ni ko waxee rek laa ko waxee ma ne ko ah, mu ne ma damaa amoon téere yoo xam ne nii bu may génn. Mhm. boo dee ba ci yoon wa. Mhm. boo ko fàtte damay wàññeekuwaat. jëlee ko nee na ma dem màkk ñëw màkk téere du fa dugg <laughs> nee ma jël téere yi denc ko. Mhm. daal dem ci aj ga. nee na ma toog un mois yoo xam gisuma téere ya waaw te lépp di dox. ci lépp di dox <laughs> nee mu ñëw rek jël téere ya <laughs> tàqale ak moom ilaa yow mi na haasa maam noonu rek la ma ko waxee noonu rek laa ko waxee kon daal sëriñ daal ñu delluwaale allahu akbar eh, Cheikh Makhtar imaam li muy wax jekk na ko de macha allah macha allah dugg na ci étape bu am solo waaw waaw mooy euh, sénégalais yi nag jóge nañ Medine waaw ñëw na junj na fi ñuy armale naka lañ koy defee ci yéene yu ñu demee uhm. euh, naka la ñuy solee armal uhm. leeral na ci leeral yu am solo lan ngay wax baat yi ngay armale uhm. boo paree nag bàkk yi ngay def gi nga xamante nii ba borom bi di ñu sant aj lem jiitaloon bàkk ga loolu da caa feeñ mooy lii ñu def yow képp lañ koy defal si Cheikh Makhtar ndax man bëgguma di guddal ndax wax ji li uh-huh. muy daa am solo lool ko soxla uh-huh. surtout aji surtout li wax ci armal bi xam nga mm. ki sangu mm-hmm. sangu farat xam nga sangu mm-hmm. farata mm-hmm. ak sangu armal ak sangu ajjuma cangaayal néew ñoo bokk dañoo bokkul tur waaye ñoo bokkul tur bokk koy <laughs> mu def ko pare jël lu weex tàll laxasaayoo ko kooku pare na pour dugg ci bàmmeel allahu akbar xam nga yow da ngaa da ngaa pare pour jébbal sa bopp yàlla fee lañ lay jébbal yàlla fii yaa jébbal sa moo tax yàlla sant na la suratul hajj waaw li fa yàlla wax ci wàllu àllaxira ak dafa bari moom la ko ubbee moom la ko ubbee léegi foofu noonu giddi yi yàlla giddi yëpp mel ni maam Mor Mbeng allahumma amin giddi yoo xam dañuy yee nit ñi ci uh-huh. baat yi ñuy wax lu ëmb parce ki nga xam day wax la bekk tax mu lu la bëgg lu mooy lan uh-huh. sëñ bi du jariñu ni mu war a jariñu mais boo ko waxee li baa di ëmb nga xam ne loolu lay fas hmm. tawxid day ne ci moom saf sap hmm. loolu bu bu àggee ci kaaba ga hmm. lu mu jaaxle jaaxle doolu boo tax allahu akbar du jàppe kaaba gi loolu kaaba gu yàlla yàble nañ ko wër dong am ñoo lay jàpp boo ko raayut wala doj waroom da war a raay loo gis da nga ko war a raay fóon ko da nga ca war a teg jël ko dugal ci génnewaat yooyu Mm. bu labbayka ji leeree mm-hmm. bopp seen bopp ñoom ñëpp waaw dañuy xam li leen tax a jóg macha allah dañuy xam ne joxam yàlla ba waral ñu dem ci barab bi rek waaye du du barab wallaay wallaay wallaay loolu dafa gidi yi dañ ko war a xam mm. gidi dañu war a xam loolu bu baax mm. ba pare li ci wax mm-hmm. waaye nag yàlla yàlla dimbali am na gidi yoo xam ne mm-hmm. li ñuy wax dëgg dëgg dëgg dañuy neexal ñi àndal dëgg na dañ leen di neexal ku bëgg rasulullaay nangam di leen neexal pour jariñoo leen pas ñu dimbali leen ba mu fa jógee bu ñu gisee nekk keneen nit xam nga ko aji ba ñëw da nga war a nekk keneen nit dëgg la dëgg ko aji ba ñëw mel na nga ma laan bi nga ajegu waaw waaw la mais Mame Mor ni muy leerale bi si mhm. Mame Mor bugguma bëgg waaw ñuy déglu mu jekki lu bari di ñu lu baax gaa yi jël waaw jazaakumullahu xayran imam yi dugg si nañ Màkka armal nañ ci yéene armal nañ ci col eh, bàkk nañ jàng nañ bàkk gi ni ko waxee ban étape boo ci topp jërëjëf Dara eh, étape yi ci topp mhm. mooy étape bu tawaaf yi Hmm. foofa nag. Hmm. yow miy gide. Hmm. yaa ngi gide ñetti façon nit. dafay wax ni giddi bi. bu mu imposer. kii aj si lan lay aj. mën na ko orienté nag. waaw bu mu ko imposer de. ndax moom ba muy départ. waaw nangoo na ci kilifaam. waaw ne ko defal aj gi. waaw waaw waaw Sénégal koo gis mu ñëw ci yow rek <laughs> am na aj gum indaale. yow kay. yaay mën a gide ci aj yëpp rek. pour yombalal nit ñi. mais bu fekkee benn aj nga bëgg a jekku nag pour imposer ko nit ñi aussi yaa y aura problème. dëgg la yaa ngi dégg. léegi waaw nga xam man ifraat. voilà en tant que guide. man tamattu man qiraan. waaw ndax ñetti façon nit ñëpp mën nañoo bokk ci ñi ngay guidé. mën nañ cee bokk. Ah, est-ce que ca da leen di guidé ndoo. yaa ngi dégg. <laughs> waaw da nga leen di guidé ndoo waaw dëgg la doo dem guidé ñii ni leen ñibbi leen daal di ñëw guidé waat ñii benn mouvement bi la. waaw bi ñu ñëwee Màkka. Mhm. ba def see ñi def ci formalité ne ci hôtel ba jëm ñëw nag ci tawaaf yi. Euh, li ngay njëkkee mooy boo duggee ci jumaay Kaaba ga. Mm-hmm. boo duggee ba def ñaanu dugg jàkka. Mm-hmm. doo njëkk def ñaar rakka. Mm-hmm. maam ku dugg ci barab bi. Kaaba gi lañ bëgg nga njëkk a jëflante moom. ba mu des na nga fekk ñu julli mbooloo. waaye dugg si nga moom li ngay njëkk a def mooy Kaaba gi ngay njëkk a jëflanteel. ndax tawaaf julli gun maye wax la. waaw moo tax liñ charte ci julli. lañ charte ci tawaaf ba mu des tawaaf may nañ ca wax. Mm-hmm. waaye wax joo xam ne nii du nekk ay waxu kii caaxaan mm-hmm. Mm-hmm. sëriñ daara bi ñu ñëwee di tawaaf ñett ñii ñi ngi tawaaf mais ñaari ñee bokk lu ñu tawaaf mais ki ci bokkul ak ñoom lu ñu tawaaf ki ifraat ak ki xiiraan ñoom tawaaful xudum la def tawaaful xudum la def waaw tawaaful xudum du farata du farata Mm-hmm. waaye ci sunna Seydina Muhammad la bokk sallallahu alayhi mm-hmm. ki ifraad ak ki qiraan ñoom dañuy def tawaaful qudum mm-hmm. waaye ki tamattu tawaaful umra lay def moom parce moom ci umra am nekk yaa ngi dégg moom tawaafu umra lay def est-ce que yaa ngi dégg bi ngeen paree ci tawaaf yooyu ngeen jëm safa ak marwa ki ifraad ak ki qiraan safa ak marwa aj màkka lay defi moom mm-hmm. mu wàcc ko wàcc ko wàcc na ko mm-hmm. ca yóbbaale na safa ak ma kii bu fekkee kii xiraan la waaw yóbbaale marwa boobu mu def yóbbaale na umra ji na umra ji ak aj ga defandoo na ko jeex na mm-hmm. benn yoon la koy def nag waaw kii xiraan benn yoon lay def safa ak marwa ci aj benn safa ak marwa googu daa yóbbaale aj ga yóbbaale umra gi ki ifraat moom day ñëw rek def safa ak marwa aj màkkaam moom parce que moom moom ñëwagul ci umra moom moom nee bu jeexalee ba yëf yi jeexalee umra ji la wax mhm. waaye comme moom ci aj la déclaré moom lay def si mhm. bi mu ñëwee dafa def safa ak marwa aj màkka mhm. waaye ki tamattu moom safa ak euh, marwa bi muy def mooy bu umra mm. yaa ngi dégg waaw xam nga ko ñoom ñett defandoo loolu ñoo ànd mais bokkuñu lu di yéene moo tax yow mi yow miy gide Mhm. il faut nga farlu ci xam say ujaaj lan lan lan leen yéene mhm. kenn ku ne nga wax ko li muy defi waaw mhm. parce que loolu da cee am solo dëgg la donte après sax bu ma duggee den ñëwaat ci mataaf bi wax tuuti ci tawaaf waaye ma àggale eh, safaak marwa ji bu ñu demee sëriñ Daara ba àggale safaak marwa ñetti groupe yooyu kenn kese moo ci ñu may watu wala mu wàññi ki nga xam dafa ifraat mënagul a watu ndax moom armal jooju mu armal day continuer ak moom ba yowmul xajjul akbar ca mooy bisu tabaski mhm. yowmul nahar ci la koy dindi mhm. ki xam aussi day xiraan mhm. la même chose ndax dañuy wax ni ifrat ak xiraan boo leen toppoon ak caméra ah ñoo nuróole lépp ba mu des ki xiraan day rendi mais ki ifrat du rendi maam boo yoroon sa caméra ñu déparé ca miqaat ba ngay filmé ndoo ki ifrat ak xiraan seen léppay nuroo ba mu des ki xiraan day rendi mais ki ifraat du rendi yaa ngi dégg kon yéene ji daal moo leen kii yoon moo leen waaw moo leen moo leen waaw léegi nag mhm. euh, kii ki nga xamante ne bii euh, day day tamattu mhm. moom bi ñu paree moom dong moo ñemee lii may waajo wax mhm. bu dee góor la day dem mu wàññi karawam mais lépp day tolloo nag parce que wàññi ci lislaam amoo droit li ëpp li ci des xasa waaw daa xaram yaa ngi dégg wala mu wattu mais foofa euh, dañ koy digal wàññi mhm. ndax day soxlawaat ay fan yu ne wattu mhm. ndax boo boo watoo nel wala mhm. mu fay saxaar ci bisu aj màkk boo bisu kii euh, bisu tabaski da nga war a watu nel foofu watoo fa gën wàññi waaye bu dee fii nag moom dañuy conseil nit ki mu wàññi ngir bisu tabaski mu am lu wat yaa ngi dégg kooku def na loolu mais jigéen ñi nga xam ñoo ñoo doon tamattu nag ñoom comme ñoom du duñu wattu duñu wàññi dañuy jël seen karaw yëpp dajale ko dagg mm-hmm. ci lu toll cetu baaraam bii mm-hmm. mooy waxtu jigéen mooy wàññi jigéen ci aj màkk ah. maam jigéen ci aj màkk bi waxtu wala muy wàññi mm-hmm. karoom gi lay dajale dagg ci lu toll cetu baaraam moom moom moom pare na kon ki if ki euh, tamattu moom wattu na bu dee góor wala wàññi na bu dee jigéen dagg na karawam ñu dem hôtel ba day simmi armalam moom ki ma da koy simmi ndax umra na ba pare da koy simmi commencé yor sol yëre yi yii ñu xam moo tax képp koo gis màkka avant ñu dem arafat nga gis ko ni ma nga biir màkka waaye mi ngi sol yére yi naata mat mu leer nañ sikk sàkk sax amu ki nga xam ne yaa ngi ko gis ca yére yële ba léegi ci biir màkka ci dama gul arafat daa ifraad wala mu xiiraan mm-hmm, mm-hmm. kon boobu différence day jara xam insha allah bu ko defee nag bu bu kàddu gi ñëwaatee mu dugg ci état bu tawaaf wala ñoo dem ci ay mun a ak yu macha allah Cheikh Makhtar ñu ngi ci biir kaaba ñu ngi ci biir masjidul haram <laughs> imaam wax na fa yu am solo daa njëkk a taxaw fexe lépp leer ci ñëpp kenn ku nekk la ngay def nga xam ko xam loo ko yéenee ak lu la wóotaleeg sa moroom ak luñ la ci may ak la ci mayut waaye tamit wax lu am solo mooy yow mi taxaw nag pour war wax ñii nii la du nii war ngaa xam kenn ku nekk lu muy def waaw ndax nga bañ a def loo kenn lu bokkul ak la morooma moroon def wala yu ni demee waaye gis nga noonu ma ko teqale tamit ci wattu gaag yëpp daal gën taaleq nga xam nga taaleq gi nga ki nga xam ne def tamattu waaw moom ñaari ñaari day am day am ñaari safar maro yu muy def safar maro yu njëkk def waaw umra rek moo ko moom bu jógee nag def tawaaf tawal ifaada nag bu fa ñëwee ci def um, tawaaf boo xam ne mhm. ajjee ko moom ci ñee ñoom loolu deen ci fekk mhm. waaye moom li muy gën a noppaloo mooy moom day daal dama nen sumeeku waaw maam juróomi fan wala juróom benn fan mën na ko nekk ci dëkk bi yoo xam ne du sol du yor armal buñ ne ñi ngi dem araf rek ci lay ci lay ci lay jëlaa yére armal mm-hmm. maam loolu mm-hmm. gidi dañ ko war a xam dëgg la dama wóor ne am na gidi yoo xam xamuñu loolu dëgg la maam maam maam euh, maam Mor ni mu maîtriser mbir mi nii bari na gid yoon maîtrise ñu ko noonu te lii bu def nii maam euh, chey may daan yi la la wér na maam du du du jàng ci téere kese dana jàng ci téere kese du ko maye ba moo ko may li mu am nii mhm. man moom foo tax maam njortu naa ni mën naa toog fii njortu naa ko bu wér ni mën naa toog fii nit réer màkka mu woo ko téléphone mu dimbali ko léegi nag moo tax man bugguma sax di ko dog lu bari ah, ah. ndax li muy wax nii ah, nit ñi moom la gën a soxla ci li may taalix moo mhm. tax ma bëgg Mouhamed nga nga kii ko macha allah balaa waxtu ki mu dugg ci tawaaf dugg ci. mën a dem arafa bala bala ñu bala ñu ëppee dab. incha allah donte nee moo ma dese. waaw waaye dina ma ko may. waaw incha allahu. dugalal ñu li nga jàpp ni am na solo lool ci biir fukki minutes yi mhm. aljuma jii di ñëw insha allahu mhm. nu àggali bu fekkee ni des na yoo xamante ni mat na ñu toogaat ci mhm. di nga ma ko may insha allah ñu toogaat ci yaatal ci ndax nit ñi jariñu ndax dañoo toll ci période tam te lii jàmm yàlla gurée la imaam euh, ban étape ngañ ci kiyal ci mataaf boobu ngeen di nga ci ñëwaat ak loo ciy teg jërëjëf sëriñ daara euh, lii euh, Cheikh Makhtar la wax mooy kaaba ga nga nga nekk sëriñ daara nga ni boo bëggee gis mbir yu dëkk àjjana da nga dem xarameeni sharifay ni ndax da ñëw di tawaaf <laughs> da ngaa ñëw di tawaaf. yàlla na fi yàlla maa ngi ñaanal téléspectateur yi. amiin ma ñaanal ma aji Màkka ren. ànd ak ñaari gars yi amiin waay waaw yàlla na ko yàlla ñoom def nañ ko waaye na àndaat ak ñoom. aywa yàlla na ñu dem incha allah da ngaa ñëw di tawaaf. waaw war a commencé xajarul aswad. Mhm. moom moom la ci suñu soppe wax leer na. Mhm. nee na xeeru dëkku fi. dëgg la xajarul aswad. Mhm. ñu ne ko waaw mu ne min axjaaril janna xeer wi di xajaru asol ñu ne ko waaw mm. mu ni ci xeeru àjjana yi la bokk allahu akbar boo ko fóonee sax di nga yëg ni kii ci la bokk mm. waaw boo ko fóonee moom di yëg ni ci fa la fa la bokk moom yaa ngi dégg booy commencé li tax ñu ni euh, yàlla dafa bari kéemtaan xam nga bu yemal xiyama yàlla koy euh, saxal la mu ñuy waxe xajarul aswad waaw di say dañu ñëwoon ci moom di ko raay ak ko yaa ngi dégg ak bët yu muy xoolee aussi mm-hmm. moom xajaru aswad googu. boo ko xoolee euh, forme caméra bi fa nekk. maanaam yow boo ma yëg yëg. da nga xam ni caméra du yegg yi jàkkaaroo yi de. daa mel ni kon waa ji xajaru aswad. mi ngi caméra du yóbbu. <laughs> yaa ngi dégg. moo tax boo ñëwee fa ngay commencé tawaaf. xajaru euh, aswad ñetti at la boo ñëwoon fekk kaaba gi ni yàmbalang. mais loolu instant bi mënut nekk. da ngay ñëw fóon ko ak sa gémmiñ. Mhm. daal ni bismillah allahu akbar mhm. soo ko tawaaf bu fekkoon ñëw nga fekk na sa loxo ci mën a dugg mhm. da ngay dugal sa loxo laal ko mhm. fóon sa loxo mhm. daal ni bismillah allah akbar waaye bu li mën a nekk jamono ji mooy nga sori ko talal ko sa loxo mais boo talalee sa loxo daal di bismillah allah akbar doo fóon sa loxo ndax danga ko talal waaye bismillah ji mooy commencé tawaaf mais foofu ñëwaatee rek da ngay wax allah akbar kaaba gi sëriñ daara ñeenti ko koñ la am booy tawaaf lu la neex ngay wax ba mu Eh. diggante ruknu yamaani ak ruknu aswad eh. ndax kaaba ga ñeenti koñ bu dee dafa am aw tur eh. dafa am ruknul aswad mooy fi xajar aswad nekk am ruknayni shaameyni mooy ñaari koñ yi nga xam moo formé xajar ismail am ruknu yamaani kon un deux trois quatre bi nga commencé premier koñ bi ba quatrième koñ ba lépp lu la neex ci ay wax rek ngay ngay ngay def waaye nag tawaaf da nga yor njàpp ba nga la cee dugg waaw yaa ngi dégg mhm. parce que moom loolu mooy mbiram mhm. léegi bi nga ñëwee lu la mhm. neex ci tudd yàlla bu la neexee waxal subhanallah allahu akbar jàngal alquran boo xasee àgg nag ruknu yamaani bu fekkee dafay daf da nga koy sa loxo ndijoor ndax laal gi day far ay bàkkaar allahu akbar waaye bu bu xatee ba mënoo koo laal mhm. moom na moom doo ko doo ko taalal sa loxo moom mhm. da ngay a laal laal boo mënta laal nga romb dem mhm. loolu sew da ngay mën a laal laal boo mënta nga romb ko dem doo ko taalal sa loxo mais ruknu yamaan yi ba keroog nga ñëwaat xajarul aswad rabbana atina fi dunya xasanatan wa fil axirati xasanatan wa qina azaban naar mooy yàlla may ñu taranga àdduna ak alaxira te musuñ ci sawara loolu la ñaan ngay tekki bon kon tëb naa yu bari ci yi ngay wax ci booy commencé safa ak marwa ñaan nga ak yu mel noonu mhm. xam ni yonent bi bu mosaan euh, def tawaaf ba pare mhm. jëm ci maqama ibrahim mhm. day waxaale laay jëre wattaxisu min maqaami ibrahima musalla mu ñëw julli ñaar rakka ci ginnaaw maqama ibrahim ndax dafa mel ni kon yëf yi bu fekkoon ab tawaaf dafa nekkoon ab lettre la koy tamponné mooy ñaari rakka ginnaaw maqama ibrahim foofa nag dangay ngay dégager ba génn fi ñuy wëre dem julli ko ba mhm. pare mhm. bëgg ren boo ko mënee faatixa qul yaa ayyuhal kaafiruun mhm. faatixa qul huwa allaahu ahad boo mënul loolu nag loo man baax na boo paree nag mu jëm safa ak marwa daa ni inna safa wal marwata min sha'airillah daa ni abda u bi ma bada allahu bihi maa ngi tàmbalee sama safa ak marwa fi yàlla tàmbalee ndax safa la jëkk a wax soo ko wax marwa kon euh, kii mu ni ibda u bi ma bada allahu bihi très bien ci beneen xaalis moo ñi def leen ni ma def leen ma def léegi <laughs> foofu sëriñ daara uh-huh. euh, boo ñëwee uh-huh. ni nga koy compter mooy nga jóge safa dem marwa muy benn mhm. nga jóge marwa ñëw safa muy ñaar mhm. nga dem marwa muy ñett nga jóge marwa ñëw safa muy ñeent jóge safa dem marwa muy juróom jóge marwa ñëw safa muy euh, juróom benn nga jóge safa dem marwa muy juróom-ñaar kon safa nga commencé marwa nga jeexal nga jeexal du da ngay dem safa ñëwaat marwa muy benn boo ko defee doo ko àggale sax bu ne benn la allez benn retour benn bu doon loolu est-ce am ñu découragé sax ah dafa dafa sori bi affaire bi du njàng kese de la te maa ngi baaxee sama moroomu giddi yi ni leen ah. nañuy dox safa ak marwa hmm. maam loo gide gide gide gide hmm. loo yàgg dem yàgg dem yàgg dem xam nga yow yaa ngi ajaare yow mi ànd ak ñoom ah. waaye boo yóbbu waaye dem ba ñëw def nga hmm. sa bos ba pare awtal fa des koo xam ne nii defagul ah. yaa ko war a wan bul ñëw ni ko safaa ngi nii marwaa nga ne deel jaabante ba keroog ngay jeexal fekkaat ma fii ma toog ànd koog moom parce que yaa ko xas déclaré ba pare waaw góor yaa ngi dégg kon sëriñ daara pare nañ foofa mhm. ndax dama ni ñu def lentement mais sirma mooy gën a xam-xame yow loo sàkku ci ñun dañ la koy may mhm. parce que sañ ñu la ko bañ a may ndax bu buñ la ko mayul doo ci nekkati gor ndax fa ma sa waajur jëlee bu ndee bay mën a wax Mame mbay Mbengue ca ku ma waxul ni jàng na français du ko xam mm. loolu sa liggéey waajur la te ba may jàng français nelaale wu ma woon de du ma woon nelaar de gouvernement bi am na ministre boo xam bokk na classe ñeenti at man ak moom macha allah am na ñeneen ñoo xam ne nii ñi nga fa ci euh, administration da doon mm-hmm. bokk ay classe mm-hmm. ci ba ñu nekk lycée Malick Sy ndax man foofu laa mm-hmm. génnee bu cees boo ko defee sëriñ daara bu ñu demee nag ba yow ma tarwiya mooy bisu juróom-ñetteelu fan ci aj màkk gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñëw ci téere yi moo def doon euh, armale Makka. cinq minutes baax na dafa doon départ Makka. <laughs> yoor yoor mhm. dafa départ. Mhm. pour mën a tisbaar fekk ko fële. Mhm. waaye foofa. ki ifraat. ak ki xiiraat moom. Mm. ji koy soccet lan yor. ji koy soccet mooy lan. xam nga soccet boo nekkoon nan dem fekk na moom jettu na ba pare. Ah. <laughs> soccet moom amatul problème. <laughs> ah jékko la moom moom boo leen ko. bërë rek dem na yoon kon ñooñu. du ñu sanguwaat. du ñu euh, soluwaat. Ah. parce que ñoom lan defoon ba léegi jóogun ci lan déclaré woon ba léegi ñu ngi ci waaye waa tamatu gi nga xam ne ñoom dañ fee simmeekuwaat nag comme dañuy jeex ñoo war ci aj gi ñooñu mhm. li li waroon nekk mooy mhm. bisu juróom fan yoor yoor ñu sanguwaat ci seen hôtel ca ngaayo armal sol seen yére armal mhm. armale fi nekk ndax miiqaatu waa màkka mooy màkka ci boppam dëgg la maam miiqaatu waa ahlu màkka mooy màkka ci boppam dëgg yaa ngi dégg comme ñun ñu ngi biir Màkka. Mhm. foofu la ñuy armale sangoon sañ cangaayu armal. sol suñ yëree armal. Mhm. julli ñaar rakka daa ne ko labbayka hajjan. Mhm. léegi nag ki tamatu mi ngi soog a dugg ci aj dugg ci aj yaa ngi dégg. kooku. waaye léegi boo xoolee heure yoor yor boobu mënut a nekkati. xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo xoolee dafa aj Màkka ak téeméeri junni nit lu ko ëpp. waaye ay millions aj. ca ay kaar leen di yóbbu. ca embouteillage day am. bu dee woon bàyyi ba yor-yor ñu soog a départ. guddi. wala boo suba ci fajar ñu war a dem Arafat dina tax dina du tax ñëpp ñëw mun a. Mm. dëgg la. moo tax léegi ñoom euh, waa Saudiya liñ ñu ciy jël ay matukaay. mooy mm. bu ne suba la juróom-ñetteelu fan. Mm-hmm. comme daal guddi juróom-ñetteelu fan. Mm-hmm. tey mooy bés juróom-ñaar bu guddi gi duggee dugg na. Mm-hmm. dañu commencé roñ nit ñi. waaye yow ma jàngoon ni da ngaa war a armale ci yor-yor. nooy def. waroon xam-xam yi indi ci ñaari fatwa. benn bi mooy. Mm. bu la neexoon nga def ba mun a nga armale fa. wér na mhm. waaye li gëna euh, dëppoo mhm. ak gën dëppoo ak gën a jige mhm. li yonent bi defoon sallallahu alayhi mooy nga armal ci guddik juróom-ñetteel ci màkka pour mën a ànd nit ñi dem ca xam ni la nga doon dabu am nga ko parce que lii xam nga yéen jàngeen ni almashaqatu tajlibu taysir maanaam teng-teng bu amee rek day indi yombal maanaam mënuñu fee nekk ñun ñëpp yor yor di départ andoo kon ñun ñëpp duñ àgg Euh, dafa am benn jour ba ci waxtaan ak benn mufti ci biir Kaaba gi. Mhm. ndax nag ñoom dañoo organisé wu. seen dëkk du ku nekkay tontu ci diine. dafa am ay mufti yu fa ne. <laughs> Mhm. ma ñëw ci mufti bi ni ko waa mais léegi nu ñuy def ak armal gi ak kaar yi départ mu ne ma am nga ñaari ñaari. xiyaar xiyaar mhm. man ko ban ban la mu ne ma bu la neexee nga dem ba mun a yor nga nga sango fa armale fa. bu la neexee nga armale màkk ànd ak ñoom waaye al afdal mooy nga ànd ak sa mbooloo. ci guddi gi nga sang nga sangoo màkk armale fi ànd ak mbooloo mi pour nga bañ a def xilaaf xam ñëpp dañoo def li yow rek nga ni coppat defi la le mm-hmm. nee na kon foofu nga koy armale mm-hmm. lan ma tax ñu dugg fii mm-hmm. mooy kii toog ci jàng ak makk ba mu leer ko mu ñëw fekk fa lii waaw waa mais ñii lu ñu bëggal bokk xanaa ñu ba waaw waaw fekk na la nga xam mënut a nekkati waaw waaw sëriñ daara dugg nañ mun a waaw war faa julli ay julli mm. julli mun a wàññi la mais amul boole ah. jullit mun a wàññi la. am na xasru waaye amul jamaa déedéet amul jamaa. est que moo tax. Mhm. yow daal xool nga sa jëmm ji. waaw yaa ngi mun a. waaw tisbaar ñaari rakk la. waaw même bu la mbooloo mi rawee sax. ñaar rakk ngay julli. mais mhm. na nga farlu nag ba boo nekk ci aj Makka bu la ay mbooloo di raw. Mhm. tàkkusaan ñaari rakk la ci waxtu tàkkusaan timis ñetti rakka ci waxtu timis suba ñaari rakk la mas di doon gee gee ñaari rakka ci waxtu gee waxtu gee waaye sëriñ daara li posé waat Euh, ba ñuy ñëw mun naa dafa posé waat fii. Mhm. yaa ngi dégg. waaw dafa posé waat. Mhm. mooy ñëpp xam ne Arafat. Mhm. da war a ñëw mun naa ba jóge fa suba. waaw xëy dem Arafat. mais buñ bàyyi woon ba yeewu. ba yor-yor jot. ñu ne acca nañ commencé roñ. boo wetul timis dina jot ci ñëpp doon àgg Arafat dëgg la wér na <laughs> la ñu commencé dem. waaw Arafat. buñ fa demee nag. dañ fa jam o taqdim. waaw tisbaar ñaar rakka. Euh, takkusaan ñaar rakka ci waxtu tisbaar. boo paree nag mhm. bul sonal sa bopp sëriñ mhm. daara mhm. dem ca montagne ma di a taxaw mooy jabalu raxma ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam taxul woon ca montagne ma ca fa lay daaneele pour bu ñëwaatee àggale ndax dafa bari yu bari yoo xam dafa war a leer yu leer waaw <laughs> eh, ca war nañu ko amal beneen émission ba mu leer nañ incha ko defee nag fi may teg sama baaraam tey rek ci arafat ji pour ñu respecter waxtu wi mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam foofu waaye taxaw rek ci sama ndigal nga fa taxawee. taxawaay la. Mhm. léegi fan la yonent bi taxawoon. Mhm. daa taxaw ci montagne ci ci wetu montagne mi. Mhm. yéegul ci kaw de. ci suuf la taxaw. jël montagne mi mu dox diggante mag kaaba gi. ndax keppaar gi la doon dàkk. dëgg ker gi. la doon dàkk. foofu na nga gis ay njomte yu bari Imaam Maxtar Sylla la. nga gis ku nekk Arafat. di ñaan. au lieu que mu jàkkaaroog xibla. fa mu taxaw ci Arafat mu jàkkaaroog montagne mi. ne ndax yonent yàlla moo xam dafa jàkkaaroog montagne mi. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy jàkkaaru montagne mi amu ci woon yéene jàkkaaru montagne mi mais keppaaru montagne gi mu doon wut mhm. la doon dàkku léegi nag mhm. xibla la doon jàkkaarool mhm. kaaba ga ca fa demoon dinañ fii la taxawoon kaay nga xool ma la montre bële ca xam nga kaaba ga la nekk kaaba gaa nga ne li dama fa mu taxawoon net ba pare wan la xibla bi xibla bi kon fu fa waaye taxaw rek taxawukaay la kon taxaw ca kaw xeer wa di sonal sa bopp loolu fitna la ci da nga roye woo ko ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour ma jeexal jox jox la kàddu gi mm-hmm. lu reelu nag mm-hmm. lu reeru waaw <laughs> ay jàngkat lan nag ñoom ay jeune dañoo agsi Makka dañoo <laughs> agsi Makka ñu war a julli mu ne ah waaw lu ñuy def fii ñu ah, dañoo waaj a de mu ne luy loolu mm-hmm. ñun jumaa ji la ñuy julli jëdee jàkkay Arafat ji xam nga yow boo nekkee Sénégal da ngay xool ñuy teg xutba imaamu Arafat loolu nekkul ku dem Makka da nga fay jullee de ndax xam nga xajuñu fa waaw ñu ne waa ji ah ñun dañu fi la ñuy jullee ñun ne ñoom xel xalaatul ñu jullee fii waaw sëñ bi te ngeen fii mm. ñu ñoom dañu dem <laughs> ah ñu bàyyi la ñu dem <laughs> dañoo dem ba àgg uh. ñu ñibbi siwaat mm-hmm. te ñun ñu ngi dégg rajo yi ma neen gars yi julli jotagul xam nga ñu julleegun ba léegi mm-hmm. lu ngeen fi wut siwaat mm-hmm. ñu ne waa ñun ban demee dañoo fekk jumaa ja fees waaw biti jumaa ja kerkeraani fees uh. poto lampe uh. xam nga ker poto day sew loolu lépp fees ca naaju màkk amoo mënoo mënoo ci taxaw juróomi minute ñu ko léegi nag yéen am ngeen expérience boobee ñoo ne kenn doolu ko jàngal <laughs> waaw kon loolu dañ ko bàyyi xel sëriñ daara macha allah imam Moxtaar tabaarakallah eh, dellusiwaat na ci mataaf bi ñëwal nañu Muzdalifa ñëw na Arafa donte lu ci nekk am na yu sew sewaan yu mu bàyyi yoo xamante ni ngeen rawatina arafa moom dañ cee war a ñëwaat bu baax a baax <laughs> nangul nañ leen incha allahu aljuma ji di ñëw daañu ñëwaat gën a yaatal ndax yi moom ci lañ toll te alhuda moom day jég dugg ci alquran al karim di xool aay yi nga xamante ni daa ñu toll julli ñu soxla ko ñu kii ko incha allah gan taalax nga def na tax waaw moom li taalax gu gàtt la mooy mhm. man daa xam naa ne émission bi moom waaw ci wàllu aj moom waaw moom doy na pour jàngal aj wér na wér na li ñu rombagul ni ni mu leere man sax ni mu leer ci man nii leer woon ci man noonu ndeysaan ndeysaan c'est-à-dire loolu li ko may nag mooy jàng na ko eh. waaye ko pratique dëgg la wér na te dafa jox yu bari yu am solo yoo xam ne hmm. nit ñi ciy juum mu eh. di leen la nit ki de boo ko leeralul yoo xam ne nii ko ne ko yow eh. boo nekkee mbaga def tamattu il faut nga armal ci yor yor bi te moom gudd la fa la jóge am loolu kon buñ bëgg a xaar ba yoro ñu yàlla sotti te kaal dañ il faut nga defaan si noonu ñu tàdd li ma dem fa di yéeg ci montagne yeeg am na dañoo faatu ci loolu yéeg ci montagne tàngooru jàpp lañu faatu fekk Afrique du yéeg ci ay montagne mm-hmm, mm-hmm. yàlla dafa dogal nañu bii dañu am benn majmuwa boo xam ne majmuwa bi mm-hmm. jamono bu nekk docteur mi ngi yónni ay audio irshadiya naan nangama nangam jëru ko daf leen nangama nangam ñu bare bari pour dimbali gaa ñu àndal ndax am na gaa yoo xam ne dañu jàpp ne rek te ay waroom xam-xam kese ngeen àndal waaw waaw dañu jàpp li ñu jàng ci téere lañu war a def waaw am yoo xam ne da koy jàng ci téere bi <laughs> boo demee affaire bi doo ko may. dëgg la wér na doo ko def kon nag da ngay def li ma a nekk. Mhm. waaye li mën a nekk pour def ko da ngay ànd ak xam. Mhm. moo tax man daal xam naa ne amul lu may tax lu gudd lu weesu eh, eh. di ñaan rek mu eggale eh, bi ñëw mu àggale aj ba mu leer nañ ci bopp ñu dem ñëpp ba émission bi ñu dee di physique lu bare bare bare incha allah bu ko mënee a nga dugal sa kàddu mujj ñu tëj jotaay bi waaw xam naa kàddu mujj rek mooy jaajëfal leen ba pare fësal ci yéen en tant ay nitu alquran moo tax man alquran sama yàlla bëggloo alhamdulillah comme nag yàlla def na ko seen dënn génn ngeen ci liggéey liggéey bu am solo ba ci riwaayaat yi mhm. maa ngi am fierté ni toog na ak ay euh, nitu alquran alhamdulilah di ñaanal mbokk mhm. yëpp ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm mhm. waaye sëriñ Daaru Muhammad Alioune Gueye képp ku may seetaan na ko ñaanal yàlla yóbbu ko ren màkk na ko yàlla def waaye aussi bu mu fi bàyyi sa xarit bi <laughs> imam xamsi la kon loolu moo nekkoon kàddu yi asalaamaaleykum dañ fay alhuda seen émission alhuda nu nekkoon doon waxtaane walillahi ala nnaasi xajjul bayt man istataa ilayhi sabila bu mu leen jaaxal nag léeg-léeg ma ne xajju waxtaan ne xijju loolu lépp ay eh, am njàngin la ci alquranul karim eh, ñu ko doon waxtaane ni mu leere ak ni mu amee solo ak yeneen yoo xamante ni liñ jot wax sax mat naa jeqiwaat waaye tomb yu am solo yu ñu dese yoo xamante ni mënta ñàkk kii dem xam ko tax na incha allahu aljuma ji di ñëw na ngeen ñu teeluwaat ci 15 heures incha allah daañu àndaat ak imaam gën a yaatal yëpp mu gën a leer ndax ñëpp mën a jëriñu seen bokk doon Abou Taha Mouhamed Alioune Guèye fii ci Tawhid TV ak seen émission Al Huda asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa